Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Django du te Notre force. Le traitement de l'info. ci suñu kër gi di waajal nekkoon ci CDD bi nga xam ne la préparation internationale def nañ teewaayu Cheikh Baye Maam léegi nag ñu ngi nii war a def benn point de presse rek nga xam ne Cheikh Maimouna en direct war a tënk lii nga xam ne moo war a aju ci waxtaan bi ak lan lañ mën a tënk bokk ñu si rek ñu ne en direct seen site yi Cheikh Baye Mamour Ibrahima day kàddu leeral tënk li nga xam ne xam ak tamit xam ne département Kaolack

votre serviteur s'appelle le préfet du département de Kaola. Je voudrais tout d'abord me réjouir de la tenue de ce comité de développement départemental consacré aux préparatifs de l'organisation du camp annuel de Medina Bay. Le CRD que nous avons organisé à la demande du COMAS, le comité d'organisation manifestations et activités de la FAIDA, le euh, concert avec l'organisation Jean-Marie. euh, la tenue du CDD s'explique de plusieurs manières. l'autorité administrative que nous sommes. Euh, c'est une façon de traduire tout le respect et l'attention que mérite le foyer religieux organisateur Medina Certes, il s'agit d'un événement de choix qui a toute sa place dans notre pays qui s'appelle le Sénégal. Un grand pays de foi. Mais au-delà de cet aspect religieux, nous le savons tous, euh, Medina Bay, c'est un foyer culturel rayonnant le foyer qui joue un rôle important dans l'éducation et l'orientation de masse. Nous avons tenu donc euh, le CDD pour prendre toutes les mesures qui conviennent, je ne dirais pas pour une bonne, mais pour une excellente organisation du GAMO édition 2022. Euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un exercice d'harmonisation, de mutualisation de tous les moyens qui sont disponibles au niveau du département, au-delà, au niveau de la religion. Tous les moyens qui peuvent donc euh, contribuer organisation de l'événement. Je dois dire tout de suite que tous les aspects ont été pris en compte. À titre indicatif, bien sûr, nous avons commencé par les questions de sécurité. Donc, euh, la police, la, gendarme, la gendarmerie, je veux notamment, vont jouer pleinement leur rôle pour la sécurisation des personnes et des biens. Mais quand on dit organisation d'un événement comme la naissance du prophète, c'est également logistique de nature diverse. Donc, euh, qui fait appel à la mobilisation de certains services publics, l'électricité, l'eau, l'assainissement, donc tous les services dédiés ont été mobilisés. Euh, la CENELEC, CENECO, la division régionale de publics, l'ONAS, l'assainissement, CG, le service d'hygiène, le district sanitaire, et j'en oublie. Le tout notamment avec le concours des autorités locales, notamment le président du conseil départemental de Daoulat, le maire de la commune nous ne sommes pas réunis en réalité pour faire des promesses aux organisateurs. Nous nous sommes en réalité réunis pour faire la revue de tous les moyens qui ont été mobilisés lors de la précédente édition et ensuite faire une projection sur l'édition en perspective. Donc nous repartons sur des engagements très fermes à réaliser effectivement ce qui a été arrêté ici, bien évidemment en relation avec euh, le gouverneur de la région, compte tenu de la dimension de l'événement. Vous savez, le Gabon de Bay est loin d'être un événement simplement régional non pas même nationale. C'est un événement d'une dimension internationale. Par conséquent, aucune précaution n'est de trop dans les conditions pour la sécurité des personnes et des biens, mais également leur confort au maximum sur le site. C'est une occasion qui nous est donnée euh, pour également exprimer nos salutations chaleureuse et fraternelle à l'autorité religieuse suprême, de le khalif général de Medina Baye. Nous voulons euh, saisir l'occasion de lui traduire tous nos sentiments de respect, euh, d'estime, mais tout simplement de déférence. Pas seulement pour euh, sa position religieuse, mais pour le rôle éminemment important qu'il joue dans le département et dans la région. Un homme très courtois, un homme très responsable, un homme très ouvert d'esprit qui s'est communiqué sur les questions de l'heure avec une approche pédagogique particulièrement remarquable. Un homme qui sait dire des choses essentielles sans verser dans les détails, sans blesser qui que ce soit, sans frustrer personne. Euh, des hommes de ce profil, des âmes de cette dimension région en a besoin, le Sénégal en a besoin, le monde en perte de repère en a besoin. Des hommes qui incarnent à la perfection euh, les valeurs cardinales que nous avons. Voilà C'est pas quelque chose, c'est pas, service ci wàllu administration ñu koy pencoo waxtaanee bu tey bi nag ñu ngi ko jagleel euh, gàmmu Medina Baye ñu dajaloo ne dañuy def CDD ndax xew dafa doy ci ñu wax ne xew-xew bu ñu la xew-xew bu jar a bàyyi xel la xew-xew bu amal njëriñ diiwaan bi la bu amal njëriñ réew bi la bu amal njëriñ àdduna bi yëpp ñu lëngoo ko nag ak ñaari bànqaas ci ëtt bi ñu ne benn bi di commence nga xam ne lépp lu fi xew-xew di yëngu-yëngu ci kër gi ñoo koy nosee di ko dox di ko wax ba kilifa yi am ci bëgg am na ndoo koy tamit ak kuréel bu nga xamante ne nii wax ansaar diin bu nga xam ne seen tur euh, doy na ci wax lan moo leen tax a ak ci lan lañu jëm fas yéene doon ndimbal rek diine bi ak lépp lu si am ñu ànd kook ñoom ànd ko ak mbooleem service yi fi ne doon waxtaanee matuwaay yi nga xam ne jaadu na ñu jël ko ci bés bu mel ne lépp yeneen ñaari kilifa yu ñu muy président conseil départemental Ahmed Moussa Benjeloun ak itam maire euh, daal daje yi wat gaal yëgoon lépp lu nga xamante ne nii war na yem war nañ ko teewal ci bés bi ñu waxtaanee ko xool ci ban anam lay gën a rafet nag benn fànn tàmbalee ci ngaara ci kaaraange ndax bala nga ne naam ne fa euh, police ak gendarmerie ñeneen ñi ñu seqal yépp lu nu war a jël ci matukaay sàmm nit ñi ci seen jëmm sàmm leen ci seen alal jàppaleen ne loolu lañ tënk fii ak li mënta ñàkk ndax itam ay nit di daje day am yoo xam ne fokk ñu sóoraale ko ngir nekkin ba mën a baax jëm ci courant jëm ci ndox jëm ci setal dëkk bi setal dëkkuwaay leeral dëkk bi toppatoo wér-gu-yaram nit ñi yooyu ak yi ni mel moom lañ doon waxtaane ma wax rek ne jàpp leen ne daje woon daje wuñu woon ngir diggante dañu daje woon rek ngir takk suñu nit ñi lépp lu nga xamante ne nii jaaru na ci te nekk ci suñuy loxo ñu fas yéene koo teewal bu nekkee ci loxo gouverneur mu fas yéene moom itam def àll wàllam bay waaram bu fekkee ci suñu loxo ay kilifa la ñu jotal leen ko ñu xam ne nangam dina fi baax ñu ngi sàkk ci yéen ngeen jàppee ci ci anam bi kon loolu moo doon solo jotaay bi ma wax ne dañu sawar nag ci di ko def ci penc bu mel ne bii penc Medina Baye xëy na kàddu yi ma yëkkati nekk occasion ma yëkkati ay kàddu nuyoo kàddu ziyaar jëmale ko ci kilifa gi nga xam ne defe naa ne bu yëngu di ko yëngal moom fi doole mooy le xalif général de Medina Baye mu doon occasion ñu nuyu sargal ko ndokkeel ko waaye yeesal ko suñu coxeel feddali cër bu ñu ko cëral ak orma bu ñu ko ëmbal ngir lan dama nekk rek toogaayam en tant que kilifa waaye dafa ñu amal njëriñ dafa ñu amal njëriñ ci ne d' nekk na kilifa boo xamante kilifa bu neex kilifa bu nga jamono addoo yaakaar naa ne ci farata lay wax kilifa nag faw muy soññi faw muy fàttali faw muy joxe ay tegtal waaye dama wax ne façon bi mu koy defee nag moo jar a bàyyi xel te mooy bu ñu waree wax dëgg ñun ñëpp mu mën a doon ci ñun dina la wax dëgg su la waree fàttali dina la fàttali waaye du la gaañ loolu moo yombul wax nit dëgg te doo ko gaañ fàttali nit te doo ko gaañ boo wax ne loolu anam bu mane la doon nit ku mën a jël ay responsabilités jamono boo xam ne mbir mi xew ci réew mi wala ci àdduna bi loo nga xamante ne ni yell na mu sànni ci kàddoom daf koy def ci anam boo xam ne bu daanee nga xam ne waxam gii moo gën a moppee loolu daal mooy yenn ci ma ko doon tënk di leen gërëm di leen sant السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلمة الشيخ ربي لنا بهذا المقتضي وتعطي سيدنا ربي كافينا المقتضي ñu sant yàlla ci làmmiñu xamratul kamal bés bu tedd bi nga xam ne dañ koy dajee tey ci pays Medina Baye di Koungheul दूसरे भाई दिवाजल भाई ताला तो लोग ईद का संकलन जो थी ईद का संकलन का हिजरिय जेके मोय संत यalla may gi ñu may cheikh al islam al hajj ibrahima yes radiyallahu anhu fi bi moo ko sam dee ko madina nabi sallallahu alayhi wa sallam waaye gàmm gi moo ko sos mos ta taxaw si taxaw ba penc yàlla dundal lépp ñu def yoon salaa sallam maa ngi fàttali ko tukki moom tukki mu sori ci àll Conakry ya weeru yonent salaa sallam di waaj a teru ñu way way ne xal bi dawaaman bi medina arqubu shahral xabibi id araahu yaqrab mu ne sama xol bi yëpp ñu aju ci madina sama soppe bi soppe yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam weeram bi mi ngi waaj a teru kon nag ñun ci tànk yooyu lañ nekk ci ndigalu xalifa bi sayidi xaadimul umma Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass nga xam ne tey mooy xalifa Baye matee ko ci borom xam-xam nekkoon ku lu jiitu mu koy nekk yàlla dafa tamit muy firikati alquran ku yàlla ku yàlla def itte oyofal boppam bëgg doomu aadama yi bëgg askan yi fonk doomu aadama ñeme dëgg ragal yàlla kon ñu ngi bëgg ci xalifa bi di wax ne ci làmminam ak ci ndigalam la commence ootee jotaay bii tey ngi gërëm mboolem ñi nga xam ne teew nañu kon nag Medina Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ tuddee Medina bi kon gàmm lañ jëm war nañoo waxtaanee gàmm ji lu jiitu loolu mooy ragal yàlla mooy maandu mooy njub mooy jàmm mooy salaam moom la Cheikh Ibrahima oote moom la Yonent bi ñuy wax ay préparat nit ñi ak suñu nekk ak yooyu ñu fàttali suñu bopp fàttali ñëpp mbooleem yi seetaan ak ñuy dégg parce pays bi pays xam-xam la pays ragal yàlla la delloo génération bu bees bi ci Cheikh Ibrahima nga xam ne référence la ak képp kuy roy Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu fexe occasionné ci gàmm gi fóotaat jikko yi defaraat xol yi defaraat jikko yi defaraat itte yi pour yokk suñu islam yokk seen jëm yàlla bu loolu weesoo nag comité bi daje na ay yoon mais oote nañ tey CDD ñu ngi remercier préfecture ñëw nañ jiiti yi euh, nga xam ne moom mooy monsieur le préfet na léegi ngeen adjoint ak mboolem ñu ànd ak moom ci service yi ñëwoon commencé nañ di remercier waxtaan nañ ci domaine yu bëri lépp loo xam ne ne jàpp nañ ne soxal na askanu Sénégal askanu Kaolack askanu Medina Baye ak li ko dikkee waxtaan nañ ci loolu yëpp dina aju ci santé ndax boo wérul doo lu bëri dina aju ci sécurité dina aju ci environnement dina aju ci eau ak électricité dina aju ci organisation dina aju ci tatagal yi dina aju ci yenn culture culture nga xam ne mooy xam-xam bi mooy naka la ñu lépp daal ci gàttal bañ a guddal moo tax àgguma ci yenn commission yi lépp waxtaan nañ ko ak ñoom lépp loo xam ne nii pays bi soxla na ko gan yi soxla nañ ko dëkkandoo yi soxla nañ ko taalibe yi soxla nañ ko sëriñ bi bëgg na ko wax nañ ko ak ñoom ñoom it tontu nañ ñu ay tontu yoo xam ne nii dal na xel ah ba pare jël nañ ay engagement ñun tam déglu nañ leen bu baax jël nañ engagement ñu nit defee nii ñu sàmmoon ñun ñëpp nañ gën a faru ñu góorgóorlu xam ne luñ def rek suñ bopp lañ góorgóorlu waaye yàlla yàlla lañu yàlla su ko defee itam may su ko defee tam lu aju ci wàllu ndox mi ak euh, courant bi ak yi ni mel ñu gën a yaatal askan wi ñaan ñi ne ci comaaw ñu gën a yaatal askan wi li nga xam ne moom lañu laaj ñu jox leen ko ñu jotal leen ko ba mu nekk occasion boo xam ne dañ ci yërëmaale doomi aadama yi nga xam ne amul ndox wala amul courant wala jafe woon na leen pour ñu abonné ko ñu jàppandal leen ko parce que loolu la sëriñ bi santaane loolu la loolu la loolu la ko maax bëgg tamit loolu weesoo tamit li nga xam ne mooy li jëm ci taalibe yëpp ak ci dëkkandoo yi tamit ñu ngi exiger bu baax di ñaan waa courant bu nañ daan def rek ñu gën koo yokk waaye tamit service yi gën a taxaw bu baax loolu laa doon wax ci lu aju ci côté boobu beneen côté bi ci topp mooy pour sant yàlla rek la yàlla def na taxawaay bi rafet na ci côté préfet ak ñi mu àndal ñu ngi nuyu monsieur le gouverneur wees bi di ko dalal bu baax di yàkkam ci gisante moom ci dëkk di yàkkam ci xaar ko ci CDD bi bi ñëw incha allah ñu fekkee ko ci jàmm ba ci réunion nationale bi incha allah waaye tam maa ngi wax ne wax naa ci jotaay bi ne maa ngi gërëm waa comment ñëpp ak looleem ñu ci topp euh, bi tey ak euh, Cheikh Tidiane Gueye bi nga xam ne moo doon doxal jotaay bi doxalee ko doxalin bu rafet ñoom ñëpp gërëm naa leen gërëm naa leen tamit ci jàmm gi weesu nga xam ne bu fekkee moo doon yàlla rek moo ñaan ci xayu xayu yàlla dimbali waaye présidence commission yëpp maa ngi leen di gërëm rawatina ñi nga xam ne nii tey teew nañ fi Cheikh Ibrahima Niass maa ngi koy gërëm ñu moom nga xam ak ki nga xam ne nii mooy euh, monsieur Pandé ñëw na teewal sëñ Abdourahmane ak docteur Diop nga xam ne bu yore la santé ñi am ngaan tamit te ñëwul Cheikh Gueye wuutu na leen ñoom ñëpp ci suñuy kàddu sëriñ bi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaan ñu àgg ci jàmm gàmm ci jàmm ak salaam loolu laa amoon wax suñu kàddu ko gàmm a nekk ci digg bi euh, na naa nga ko wax Medina Baye bi ko waxee wax inondation xam ne jamono ci ndox mi dafay jaar ban appel ngay lancé waaw loolu li wax mooy sant yàlla ki nga xam ne moo sos gàmm gi mooy Cheikh Ibrahim góor gu nekk aussi fekkee waxtaanam mu nekk li ne ma ne toog nañ fii di gàmm muy taw muy dëgg rek moom bàyyi leen ngeen doog te ngeen ko dégg dañuy gàmm ñu leen yéen baykat yi ngeen nii bu bàyyi ngeen di bàyyi buy taw ndax da ngeen di bàyyi seen ji wala da ngeen dellu seen kër yi da ngeen di toog di seen ji tawte ba pare soxla kon nag ki ñuy màggal mu ci yàlla moom soi kon ñëw nañu fekk ñu ci nawet waaye lu ñu fekk rek dañ koy def kon lépp lu ci war ci matuwaay incha allah waxtaanee nañ ko ñu koy jël ñu ngi koy taxawee fii ci biir Medina Baye ak commission yi waaye itam ñaan nañ service yi tamit lépp lu yëpp ci matuwaay jël ko ñuy engagé wu nañ allah. maa ngi gërëm presse bi bu baax nag. di jaam Medina Baye ñoom ñëpp ñu ànd ñëpp ñu fi teew ku nekk ak turam maa ngi fekk nañu ci bés bi maa ngi lay gërëm. incha allah. dama am benn question. Hmm. par rapport ak conjoncture dégg nga jox ma ko jox ma ko. parce que ñaar ñëpp la ñu a wax am xam ne loolu état la état li mu mën defar prix ñu koy ñu koy gën a ñaar ñu gën a béyee loolu parce que askan bi ñu sonn ci affaire bi lii prix yi rek la waaye commerçant yi nga xam ne ñooy indi marchandise ak ñi jaay ñoom tamit ñu ngi leen ñu déggoo état

jëlum bi micro bi jëlum oh tenu ni mbal kay ta encore réunis pour préparer le international de Euh, mais cette année, permettez-moi de me réjouir vraiment de la tenue de ce CDD avec le monsieur, le chef du département, qui se trouve être l'autorité euh, administrative chargée de la mise en œuvre de toutes les mesures d'accompagnement que l'État doit, doit prendre pour accompagner le comité d'organisation de l'examen. Euh, vraiment, nous, nous le remercions vivement, nous remercions son engagement et nous apprécions, à sa juste valeur sa sincérité dans son discours. Avec l'ensemble de ses services techniques, on a échangé en tant que comité d'organisation unique, nous du côté de l'autorité religieuse, lui du côté de l'autorité administrative. Nous constituons une seule et seule équipe appelée à travailler pour un seul objectif, c'est-à-dire la réussite du gouvernement je pense qu'on a échangé dans des, conditions les meilleures. Euh, les services techniques présents ont tenu des discours vraiment qui nous rassurent. Euh, c'est vrai que le contexte de cette année est un contexte d'hivernage, mais comme l'a dit Chef Raymond tout à l'heure, toutes les dispositions sont en train d'être prises avec l'autorité administrative pour que le séjour des pèlerins à Medina Bay soit des meilleurs pendant ces 21 jours qu'ils sont appelés à passer à l'élection. Par rapport à la conjoncture euh, qui se tenue actuellement dans notre pays, euh, quel est l'appel que vous avez lancé aux études des États-Unis par rapport au coût euh, prix de cette langue S'il y a un appel à lancer, je vais peut-être dire en français l'appel que l'autorité de a de tout à l'heure. Mais je pense que comme il l'a dit, nous lançons d'abord nous tous citoyens hein, avant de s'adresser à l'autorité sachant que ce qui se passe dans notre pays est partagé en matière de responsabilité entre les citoyens que nous sommes et l'autorité. Essayons d'être de bons citoyens. Inch'Allah, Dieu nous donnera les meilleurs N'est-ce pas ce qui se passe sur le marché n'est pas fait par les autorités, mais il est fait par des acteurs, des citoyens que nous sommes. Donc vraiment, s'il y a un appel à lancer, l'appel est lancé d'abord Tous les citoyens que nous sommes, avec des musulmans modernes, des citoyens modernes, pour qu'on passe plus président. de Mais ce que l'autorité en a dit, c'est un constat qui est là. On a demandé la fermeture ils ont pris l'engagement de le faire parce que c'est ce qui est le mieux pour la population, c'est ce qui est le mieux pour l'événement que nous organisons. Et nous, avons, nous, à Je suis sûr qu'ils ne ménageront aucun effort pour réaliser les engagements qu'ils ont ici. Sen. Sampai Mamun kenal berada di sekitar ini mengundi ya ak berada ligi tengker moy ne mbolem yi nga xamne digé la yi ak bi ak ñeneen ñi jël nañ ko insha allahu rabbi kon daal lii moo nekkoon CRD Gamou International 2002 seen site di Uras Info ñu ngi leen nuyu leen ziara ba beneen yoon insha allahu rabbi ba beneen yoon ci CRD bi insha allah Uras Info xibaar yi gaaw te wóor Uras Info à temps réel. URAS Info. Django du te Notre force, le traitement de l'info.